dama ni la dama jaar de waaye man yaa saf ci xale yu baax yi nga bokk te seen TV yi nag laa rek moo yëngal jamono mooy filim paaj dama ni la yéex am gi la wax waaye laaw la a kontaan waaye yow ku la gis dama lay wax lu baax. looloo am damay wax sama doom di liggéey di teen coo sama yin yal na la yàlla jàppale li ngay wut ci liggéey bi yal na la ko yàlla ak Sëriñ Fall jox. maa la ko ba xoola yu baax yi nga def te lii jëlal tànk yi xoola sama gerek faas doom bi kenn yow. ba mamee fi jaar. Ah, mami mami nag laaw la te li defal xale yi da koo teg ci heure teg ko ci temps waaye kenn yow. seen soo sama yéen. waaw wuy seen TV yow moom bàq ma day ndaw seen TV. seen TV xoola xale boobu ni def bi baax yi. koo koy mbay dollar. mbay dollar kenn yow. waaw. nekkoo ci saa sëriñ ñu naan mbay wàcc liggéey rek la ñor ba nga waree teral sa sa yaay laaw la ba nga waree jàngi nga waaye ba nga liggéey liggéey nga waaye nag seen tool sama yin yaay ngi dem waaw loo wax ak yaay maa ngi yaay ni nga na ma demee ñëw kaaw loo defanteeg yaay gis damay laaj papis loo denc dollar loo denc dollar sa ma loo denc kaa defanteeg sa yaay cameraman laaw la set yaay jundey cameraman yi. Papis Dem. Papis Dem. yow yaay jundey cameraman yi. xale bu am filing bi xale bu am maanaa bi xale bu nangoo liggéey bi yan la yàlla teral. waaye dugg ci biir. ñëwal ma dugg làmb weccat laa ilaha illallah ah, tey rek ma dee man damaa génnaalewul dërëm Papis kañ ngay coupé may ma. naa mbay wàcc ma Babacar wàcc ma liggéey la ñor dégg lii xool daal lii. damay jarax. Papis Papis tëjal lii ñu def tey nag lii laa leen indi doon comme wax feej ba foog ni dina leen neex temps yi gis ngeen sama oto bu tooy bi ma yore ba tax na tey fii laay tëjee déglu leen déglu leen xale bu baax bi xew ci jamono aywa xarito waaw waxi eh da ngeen may yéendu bàyyi leen ma da may yéendu da ngeen bëgg a piraak da ngeen maa bëgg a piraak maa bañ <laughs> oh,